xale boo xamante ne méccam la yor di ci tëdd Omar soxlawul sama teer bi pour toroxal doomu Safen ñëpp dama leen di njaboote tey ji bu nu jëlee mairie bi dañuy tegaat affaire bi ci raay bi te duñ fi nekk di xuloo duñ fi nekk di teesante ndax ñun ñëpp ay mbokk lañ loolu nag fii laa koy waxee ci diggu tóoglu ñëpp xam ko ku yaakaar ci man pour dal ci kaw ñi fi nekk da ngay sono sa bopp sama mbokk lañu ñoom ñëpp te incha allah bu ñu jëlee maire bi dañ leen di sànq sutura tegaat affaire bi ci raay bi doxal ko dans l'intérêt des populations kon loolu laa ne naa ko ci wax om fi mu nekk nii xol bi tooy na mais bëgg na ci sànni kàddu gu gàtt après nag ñu kon ne caravane bi ndax dañuy caravane ba pare def meeting ndax loolu ñu rek ñoo fi sañ a def fii ci Koursar waaw du ma woti bi kax ni o cardi sang wooye ndax duy ni ni nik nga ayi yaakaarin Koursar fi maa ñi woone Macky Sall ayɓeyde a taffade ngade ɓo tuubo yakaran président président yakaran ngade pour ne haɓɓiɗe cour safi kono wem rek wo doy ɓoɗnu am ngan in wirisɗa inaf am nga fujoyiɗa markis ndax ɓo fujoɗɗi am ngan in jaran cikice ina wo do helingo one mbahal 40 ans wo do do one mamadou ndion ɓo ñame sos ƴaɓa ƴeneɗa mais ina wowo ke ñam sos rayit wo rayiɗe mbahal 40 wo reh kon nak wo ini dose i guɓi ndi o jaayi ɗiso hana ɗisi quiris ndax ɓoɗno hoye guɓi fo sanka poof cottaɗa ɓe guɓi ɓa telan kon guɓi ɓaɓa ko ɓowne om inini ko holtingo ɓoyinniɗa kono inem wori e hittak bañ bañ nangu bañ bañ nangu bañ bañ nangu bañ bañ nangu bañ bañ nangu bañ bañ nangu bañ bañ nangu may leen ma ma ñëw may leen ma ma ñëw. may leen ko mu ñëw kon bi léegi wallaahi. dama leen ne. jigu leen. dama leen ne. Mamadou Ndione. fi ko Macky Sall teg. du fa teg cuuni. fi mu ko teg. du fa teg cuuni. dama ne Mamadou joon fi ko Macky la teg du fa teg cuuni nit la fay teg nga moo xam ne am nga bopp yaa ngi ànd ak am nga nit bëgg nga nit ñi Mamadou Ndione bañ bañ nangu bañ bañ nangu bañ bañ nangu bañ bañ la homme war a ndax ay acteur politique même bu ñuy xëccoo dañu war a xëccoo ci jàmm ak salaam kon alsamba yàlla na ko yàlla xare àjjana sàmm njabootam sàmm njiri alsamba sàmm ñëpp mbiru politique nag ku mu neex nga far fu la neex mais li ci ëpp importance rek mooy ku nekk nag nga wane sa projet boo wanee sa projet après li ci des nit ñi xool li daal seen xel ñu def kon maa leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla la yàlla def li gën ci Gourssart yàlla rek a xam yàlla yàlla def li gën ci Koursaf yi te li gën ci Koursaf yi defe naa ne waa Koursaf yi xam nañ ko te yàlla na ko yàlla def maa ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala

merci beaucoup merci merci. doon seede ci góor gi Aliou Samba si yow parce que nee naa leen jiri kilifaam la mais mën naa ne aussi ji bi suma rakk la mm-hmm. euh, yoonu politique fu waaye neex na jaar dara nekku ci mais xale la boo xamante ne xam naa fi ma teg mm-hmm. te moom aussi ñàkkul xam na fi ma ko teg léegi rek maa ngi koy wax fële nee naa leen Alsamba mm-hmm. yàlla ko yàlla xaraat jën nekk na fi ci politique bokkuma ak moom jëmuwaay te kenn mësuñu dégg ci coow loolu day wane ne moom mat na kër sëkk te man aussi góor naa ci ba tax na damay lancer appel au acteurs politiques di leen wax ne yoon yi même bu wutee nañu rafetal ndax damaa ne buuxante def lu baax jarul xaste jarul xulo jibi nag maa ngi lay gën a dénk ngay muñ lu ne di ko dégg lu ne di ko dégg façon bu ne di ko gis hmm. mais àdduna boo bëggee noppalu. Hmm. bul xool ci rétroviseur bi. Hmm. boo ciy xool li Ismaïla Lo daan woy rek nee na boo fàttalikoo da ngay soxla moo tax bul fàttaliku man xam nga bu baax li nekk sama xol bi daa weex tal xam nga bu baax xam naa yow sa xol li ki nekk te yàlla xam na ne hmm. fu ma wax ñaari baat ñett dama naan jibide dama koy ñaanal li tax ma koy ñaanal parce que dama koy yërëm te moom xam na bu baax man ma xam moo tax yéen ñi ànd ak jibi hmm. dama leen di dénk ngeen rafetal diggante bi yéen ñi ànd ak Mamadou Ndione ngeen rafetal diggante bi te àdduna politique du du ëmb day xëy rek wasin te hmm. man ak jibi man ak jibi man ak jibi tôt ou tard dinañ daje bi sone ma gis sa appel hmm. loolu laay firndeel ci kanamu ñii la ñu waxante ñun ñaar ku ci nekk xam na ko te yàlla xam na ne li nga wax ci suñu kilifa mooy li nekk ci yow léegi lañ ma téléphoné ñu ne ma jaar nga kër ga balaa nga fiy egsi loolu dam koy rafetlu yàgg-yàgg suñu yoon yi dinañ daje sama papa mii di Abdou Ciss Abdou Ciss ñëw naa ba ci këram waxtañ ne lu bëri ci yow biir këram laa ko fekk mu ne ma yook Mamadou yéen a bokk benn saangu ma ne ko suñu pa suñu maam donc jaabo mus na ma wax ne muy Mamadou muy alsamba muy yow jibi bu ma ci dégg lu ñaaw yàlla ko yàlla yërëm ñoom ñaar ñëpp ñoom dem nañu maa yow ñoo fi des diggante bi buñ ko yàq nañu rafetel ku ci nekk am nga droit jël sa yoon waaye na lépp rafet ndax mu jëntal bi li nga wax la dinañ daje. allo. ba léegi 2013 sax laay wax mu ngi ci ba léegi. te bàyyiwul tey jii bu ñu waxee APR fii ci Doglu moom la ndax moom moo njëkk a ñëw commencé di géem a góorgóorlu pour tabax parti bi tey ji parti bi tey jii fii ci Doglu village bo quartier boo dem Abdou Djeylani samp na fa xale yi ba pare xale yi bu ñuy liggéey di ko rendre compte kon dama lay gërëm di la sant ci biir mbokk yi Djeylani yàlla na la yàlla fay yàlla la ko yàlla fay ci say njaboot ndax yow soxla woo dara li nga soxla mooy say njaboot rek te ñun ñëpp sa njaboot lañ bokk loolu nag mënu ma ñëw ba tooglu te waxuma ko te jii tooglu quartier par quartier néeg par néeg kër par kër sango par sango lépp waxtaan nañ ko ba nee naa tooglu mokk na rumbax mokk na ba mel ni sungufu njël xam nga la mooy sungufu njël sungu fu njël moom neexul a gis de daa mokk ba mel ni sungu fos njël sunguf boo xam ne boo ci defoon saaj wala nga def ci coyam di nga xam ne lii jaar na yoon kon may gërëm ñëpp di sant ñëpp kon Jeylaani yàlla na la yàlla fay caravane la rek lii entraînement la lii du match bi commencé gul mais entraînement bi nag dafa commencé tiital gars yi moo tax est-ce que match dina am est que match dina am est-ce que match dina am kon Jeylaani sànni ci kàddu yu gàtt nga yeewi yéen waa Kodang maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant ñëwul maa ngi nuyu ñëpp ñëwul de maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di leen xamal ne DG Ndione mii taxaw candidat la leader la boo xam ne bés bu ñëwee tooglu sañul sax ñëw tooglu te du egg ci man ndax comme ni mu ko waxee démb la avant tey ñi ànd démb ak barke démb nag suñu tasee tey moom mënul jafe mënul lëndëm waa Kodang dénk naa leen Modou Ndione depuis DG Ndione toog naa fi ak yéen ak moom ñu waxtaan ma xamal leen ki mu doon ma xamal leen li mu bëgg ma xamal leen yit li muy dox muy loo xam ne seen njëriñ la di seen njëriñu njaboot ndax mairie bii muy laajte am na xam-xamam am na man-manam am na moyen am pexe bi waxi noppi kon nag suñ ko joxee suñu mairie am nañ yaakaar bu doy ne na mu war a mel ak lañ ca bëgg dinañ ko am ndax mairie bi jëkkewul mairie dafa mujjee mairie communauté rurale la woon mais bi mu nekkee communauté rurale dafa am équipe yu ko yoroon équipe yi ko yoroon nag yore nañ ko ay ñaari mandat ñu dellu mu nekk commune ñu yor ko biñ ko yoree boobu ak léegi war na daté vingt et un ñaari sept ans ak six ans ak deux ans mu ngi ci diggante vingt deux ak vingt et un même équipe bi boo ko doon piloté boo ko doon piloté équipe bi yore woon communauté rurale bi moo yore équipe bi yore woon communauté rurale bi moo yore mairie bi ki yore ñaar fukki at ak benn commune doxul walla nit ñi mënuñu am firnde boo xam ne mun nga ci teg baaram loo ci dig nit naxe baay la rek loo ci dig nit naxe baay la parce que mënuloo jiite kër gi ñaar fukki at ak benn kër gi mënul mel ni mu war a mel nga dellu nga ne alors danga leen di yëkkatil étage mënul nekk bu ñu naxante ànd nag bu mun a doon ci àdduna li ci gën mooy rafetoo li ci gën mooy rafetal ndax ñun ñëpp ay mbokk lañu ñu ni neen lañu Modou Ndior mi yookam la man yookam laa Jibi Cissé yoo kam la Cheikh Diouf yoo kam la eh, Issa Diouf eh, la laxa la day ànd yoo kam yi kon ñun ñëpp ñoo bokk geetaay bi ak xaali puy xaali Diouf yoo kam la kon ñu ni neen la ginnaaw ñu ni neen la nag nañu fexe ba ñu waxtaan ak ñoom ci anam boo xam ne kenn du ci xuri kenn kenn du ci xoos kenn kenn du ci wax kenn wax bu ñaaw bésu nag urne ba su ñu demee ku nekk sa xel soo ko nëbbee kenn du ko xam lu ci nit am wala lu ci nit xam wala lu ci nit di def nga def ko ci sutura ci secret kenn bañ a xam samtuñu kenn xuloo samtuñu kenn xeex maa ngi leen di ñaan loolu dina ñaax ci loolu ah Jeylaani commencé na meeting a ah, gars yi ah yaram bi daa tànga ah. maa ngi naan ko entraînement la rek moom mu commencé jouer match bi jouer na match bi ba noppi kon the game is over les combat bi jeex na y aura pas de combat parce que sunu entraînement tiital na gaañ yi te combat bi jeex na jërë ngeen jëf. section Diass hmm. docteur Saliou Ciss jiite ko Assane Mandiok nekk adjoint am hmm. Babacar fay nekk deuxième adjoint def nañu réunion ñoom waa parti socialiste hmm. génnee déclaration tasaare ko ci Sénégal yëpp. pour wax ne ñoom parti socialiste am nañu candidat ci élection yi laaj leen ma ban candidat la. ban candidat la nee nañu Mamadou Dione mooy seen candidat. PS Dias nee nañu Mamadou Dione mooy seen candidat. dafa am big moo yaa nga fa woon ce matin. Mm. loolu lu muy tekki day tekki ne banqaas ba gaa ñi wéeru woon banqaas ba ñolle euh, yol euh, deñ na ñëw na ci ñun pour renforcer suñu banqaas kon damay ci profité pour lancer en appel. à toute la classe politique de Diass pour wax leen ne man ñëw ma ci politique pour tasaare nit moo tax dama ñëw pour ñu ànd ñun ñëpp ñu njaboote ñëpp ndax boo ànd ak parti socialiste ànd ak l'APR ànd ak bés du ñàkk ànd ak une bonne partie du PDS ànd ak une bonne partie du PASTEF ànd ak MRDS bu Imam Issa Diouf ànd ak euh, euh, toutes les forces vives de la commune defe naa ne affaire bi mat na sëkk gannaaw mat na sëkk nag moo tax ba njool jas 18 heures 18 ba nga waxoon 15 heures 18 léegi laay wax sax jërë ngeen jëf. te ngoon dañu am benn équipe bu ko mais fii moom te mës na fi ñëw ñëwaat mais dinañ fi ñëw ñëwu match de football ñëw campagne nga xamante ne bu waa drone match amical bokk ko dina am ay dóor daal la tuuti mais vraiment dañu leen di gërëm di leen fan la fan la taw lu kon li ci des rek mooy yàlla yàlla def lu mais ñun dinañ ko def suñu warugar fexe ba ñu comprendre le projet man ko yëkkati bu fayunte du leneen lu jéem a defar dëkk damaa ñëpp comprendre nañ ko léegi ndax Mamadou Ndione xolam lu weex tàll bëgg bu ma lu yëkkati te war nañ ci rafet njort ndax la ñuy defagum te jëlagu ci mairie mais mu gën a diis li di jot a def te ñoom ñu yor suñu budget voilà euh, ma yow suñu yaar tax ñu fàttali ne war nañu bay bay jàppale nga ba ñu ba ñu ngi bay 100 hectares rek li ci des rek boo leen doolee cere ñu doon ñax affaire bi gën a gaaw gën a jënd jërë ngeen Allez, merci beaucoup, merci, merci. pare fii dañu war a dem kàndam bu ñu paree kàndam dañu war a dem benteñe def paaki def buuxu ba pare enchaîner ci beneen meeting mais ñëwuñu pour camp pour tàmbali campagne dañu xëy rek sunu yaram laaj ko rek ñu ne nañu nañu nañu entraînement tuuti kon dañuy gërëm waa kër gi yëpp Souleymane xam nañ ne dafa liggéeyi moo tax tey nekku fi mais bu idi teewee rek lépp mat na bi ñu duggee tooglu ba léegi nag ñu ngi leen di xamal ne seen doom jii moo jiite caravane bi ñun ñu topp ci ginnaaw ndax ñun ni ñuy àndee àndu nawle la ñuy ànd ku ñu ñëw sa village wala ku ñëw sa quartier dañ lay jiital ne yaay kilifa gi kon idi jarul ngay wax soo waxee sa xol day tooy ñun ñoo lay waxal wax mbokk yi ne yow guddeeg bëccëg bokk nga ci sunuy Baay Faal bokk kay ci ñi nga xamante ne liggéey sa liggéey dafa set wecc te sa liggéey yëpp intérêt tooglu nga ciy seet intérêt Koursava bi nga ciy seet kon dañu lay gërëm ci kanamu mbokk yi di leen wax ne lii match bi commencé gul dañuy entraînement rek waaw lii entraînement la rek mais bes bu match bi commencé dinañ fi ñëw campagne ko ba mu saf sap ngeen xam ne bu boobaa ñun ñooy campagne ndax ñun suñu entraînement moo ëpp bayre matchu gaañ sunu entraînement moo ëpp bayre matchu gaañu sunu hymne bii ñuy teg ci mis euh, ci ci ci euh, ci son bi xale yu ndaw yi sax xam nañ moom Mamadou Ndione bu otoom rombee Koursaafi xale yi dañuy xàmmee oto bi dañ ciy topp di daw defe naa ne loolu rek ku mu doyul xamul lu lay doy kon dinañ ñëwaat may leen ñu rek ñu continuer caravane bi mais dinañ ñëwaat te bés bu nu ñëwaatee gars yi dinañ xam ne combat sax est-ce que dina am est-ce que combat sax dina am. y a match de. abi wax nga dëgg de match du am incha allah kon idi duñ la may nga wax ndax boo waxee sa xol day tooy ñu ngi continuer caravane bi yaa ñu jiite continuer jiite caravane bi ñu ñoom ñu topp ci ba génn tooglu bu ñu eggee kàndam waa kàndam jël jërë ngeen jëf. tàmbali. Eh, wax ji eh, su ko defee ñu muslu ci seytaan yi eh, jàng fatiha ak salaatu fatiha su ko defee ñooy ñaan ci soxla yëpp lépp luñ ci bëgg rek ah, ci kàttanu yàlla subhaanahu wa yàlla defal ñu ko alhamdulilah fi ñëpp di jégalu ci kilifa gi moom mooy sunu kilifa ñun ñëpp waaw mais dama koy jégalu ci xaar bi ndax mag moom mag mag ak ak ak ak ñàkk wér ñoo ànd te ñun ñi sax ci mag ñi lañ bokk léegi ndax bu nu jógee sax dinañ gis ne li ñu daan tooñ sunu maam yi naan leen bu ñu daan gis sunu maam yi mu naan ñu bësal ñu fii ah loolu sax mu ñuy dab ñun ñi nga xamante ne romb nañu juróom fukki yi di dem kon daal dañ lay gërëm di la sant di la feddaliwaat sunu cofeel ak sunu kóllëre man léeg-léeg dama naan rek chef de village ak imam ñoo njaboote ñëpp waaw ku nekk nag boo ñëwee da nga ciy jël sa wàll rek nga jàpp ne ñoom ñoo njaboote ñëpp te ñëpp la ñu war a dalal chef de village ak imam ñoo mel noonu kon eh, yow moom xam nañ bu baax fi nga ñu teg waaw ndax ndumbee du denc di ñu ko wax xam nañ bu baax fi nga ñu teg te fi nga ñu teg yaakaar rek moo tax te yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu waaw dañ lay feddali kóllëre googu di xam ne eh, tey jii dañu def caravane eh, commencé nañ ko gàndul ñu ngi jeexal toglu ndax bu ñu paree fi mbir jam moo ñu dese continuer kàndam benteñe te waa paaki ñu ñuy xaar te ndax bu nee nañu bu nu ñëwul moom du baax waaw te bu ñu paree paaki dañu am meeting fële ci jas kon euh, xam naa wax bi du mën a yaatu mais daal ñu ngi lay gën a ñaanal yàlla gën la yokk wér gën la yokk ndëgër laay ndax xam nañu bu baax yéene bi nga am ci dëkk bi waaw te yéene bu sell la euh, waaw te ndumbe moom dañuy profité également pour gën ko gërëm ndax ndumbe yéen a ko yar xam ngeen ko bu baax du dugg ci caaxaan ndumbe moom caaxaan xamu ko lépp lu muy dugg damu ci njëkk seet day seet ndax lii yoonu siraatal mustaqim ndax dëppoon ak moom moom ma lay feddali ne di la xamal ne jigéen ju am bu am njëriñ ci sunu ànd bi la waaw ndumbe lu xew bu ko kon jot a maye day ñëw te du du ñëwantu day ñëw jiite ko taxaw ci liggéey ci te fu mu ñu woowee téléphone soxla dëkk bi la duñu wax mukk soxla soxla dëkk bi dëkk bi jàkk yi surtout jàkk yi moom ñoom moom la gën a faral jàkk yeeg daara yi moom ak jumaa ji ci yooyu lay gën a wax te lépp lu ñu fi jot a def jàppaleen ne ci moom ay soññ yi mu ñu soññ moom ak ñoom Aliou sekk mi loolu moo tax ñu koy ñu ciy góorgóor li ma seede ci ndumbe mën naa ko seede ci Aliou mën naa ko seede ci njaboot gi yëpp kon daal loolu laa ci doon wax boo ñu euh, ñaanalee rek après ñu continuer caravane bi mais dinañ fi ñëwaat ñëw boo xamante ne sax du doon ñëw politique ñëw ndumbe nag ñu ko fàttali bu baax nag ndax man damay diggee nii rek na saa ma diggee dee ma ko fàttali dinañ fi ñëwaat ñëw boo xamante ne ñëw mbokk lay doon ñëw ñëw ñëw boobu dañuy ñëw déglu say conseil ndax yow ak mag ñi la woon démb yow ak sama jur la woon démb waaw wax ji daal ci gàttal loolu la di la gërëm di la sant eh, asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi seen fële Moussa lu waa Moussa moom su ci sunu ñi magal sunu ànd bi ci la bokk waaw ma koy gërëm di ko sant. jërëjëf. déglu leen suñu kilifa bi Baye Assane Diouf di jaraaf bu Sëñ Babacar nee na mu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di leen garam di leen sant. nee na mu ngi leen di garam di leen sant. bekk naa ci ñëw bi moo di njoon ñëw fii ci ne bekk na ci ñëw bi moo du njoon ñëw fii. moo di njoon. nee na moo du njoon. li mu xam ci moom. nee na li mu xam ci moom. xamu nee na moom Modou Ndione sax xamu ko. waaye daf may romb. nee na daf koy romb. ndax Omar Ndojol mi ko jur. nee na Omar Ndojol bi ko jur. ak Aliou Ndojol. ak Aliou Ndojol. ñoo bokk ndey ak baay. ne ñoo ak baay. ñoom ñoom ak goram. bokk ndey. ñoo bokk ndey. Modou Ndione ba ba noppi. nee na Modou Ndione ba noppi. mu nekk seen jarbaat. mu nekk seen jarbaat. attention xam naa ah Modou Ndione ah góor gi xam na la bu baax. Aliou Ndojol mu Omar Ndojol. waaw wolore la woon ne su wolorem la woon te ba mu gaañoo ndakaaru ne na ba mu gaañoo ndakaaru ñu denc ko Dakar ñu denc ko Dakar ñu sarax ko ñu sarax ko ñu ñëw fii ñu ñëw fii ma dégg ne doomam mu ngi def politique nee na mu dégg ne doomam mu ngi def politique ndumbe mii góor la lay day ñëw ci man waaw nee ndumbe mii góor la waaye yàlla day ñëw ci moom yàlla nattu ko yàlla nattu ko musul ñëw ci man nee na moom musul ñëw ci moom te bëgg naa bëgg naa ñëw ci man waaw tey la bés bi commencé na mhm, mhm. naa la nag Mm-hmm. nee na baal na la wallaay. <laughs> baal naa la. Mm-hmm. Eh, commune bi. nee na commune bi. ay yookam kese ñoo ñoo ñoo ko bokk. nee na ay yokkam kese ñoo ko sekk waaw yookam yi daal. ñoo mm-hmm. ñoo ñoo bokk commune bi. waaw nee na yookam yi daal xëccoo bi yëpp ci biir yookam yi la. kii nga xam ne moo fi gan moo fi gan nag. nee na kii fi gan nag. yal na ko yàlla jiital. yal na ko yàlla jiital. ndax. nee na ndax. Modou Ndione. Modou Ndione. ni nga commencé. nee na ni nga commencé. rafet na nee na rafet na. bu ne maa ngi lay déglu kay maa ngi lay déglu kay. nee na mu ngi lay déglu bu baax li nga def ne li nga def ci jumaa ji. ak li nga def ci jàkk ji. ak li nga def ci jàkk yi. ak li nga dimbali nit ñi. ak li nga dimbali nit ñi. yëpp mu ngi koy dégg. ak li muy def ci hôpital yi yëpp. waaw sport bi école yi yëpp. Eh, nga ñëw suma kër tey. Mhm. nee na nga ñëw këram tey. kon. nee kon eh, nag. farma moom farul ak kenn. koo xam ne ñëw na ci dëgg. kii ñëw ci dëgg. moom laa faral. moom la faral. ku ma nuyoo. nee na ku mu nuyu. ma enteré ko. mu enteré ko. am loolu la. ah wam loolu la ndax dëkk bi. ndax biir dëkk bi. dafa am borom. nee na dafa am borom. te commune bi it dafa am borom. te commune bi it dafa am borom. man maay jaraabu commune bi maay jaraabu Tooxlu. nee na mooy jaraabu commune mooy jaraabu Tooxlu. be. nee na be jaraaf amul fii yëpp moom am Dakar. waaw jaraaf Ndakaaru lañ koy dégg. wala xanaa seba wutaan mais saafen yëpp dégguñu ko fii fu dul Tooxlu. Njoon. nee na Njoon. entraîné. mu ngi lay entraîné bismillah. li nga bëgg yàlla na la ko li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal. mu ngi lay ñaanal loolu. nee ndax dégg nga wax ji. yàgg na la xam. Ah, alhamdulilah nee na yàgg na la xam. jabar Aliou Ndiodiol. Mhm. kër kër gi moo ko moom jigéen gan jigéen suñu jarbaat la. jigéen jabar Aliou kon dégg nga ci njoon gan jigéen nee na jar seen jarbaat la. rakk rakk Ousmane Ousmane Yàpp la. Ah, mhm. ci kër gi ngeen bokk. ci kër gi ngeen bokk. Dodo Diop mi ngi sonn góor gi de xam na la bu baax a baax. ah ma. Ndumbe Modou Ndiol maa ngi lay dégg dégg nga Ndumbe. ah <laughs> waaw. xale bu yaru la bu baax la bu ban ak mën la. kii day day dugg waaw ku yeewu la ci politique muy dem ku mu dem. Mhm, jàmbaar la mu bu eh, eh, mu yaaru. wallaay bee Lamine Diallo ma ne. Mhm. suma doom bi. waaw dem nga ci moom mu ne ah mu ne day ndume moo baax. waaw ah, loolu la. Mhm. Eh, rox Diouf mi. suma suma doom la. sa la. da yéen a jur yaayam. kon waaye yow sëñ bi yéen a moom réew mi waay kii baa ngi ah kooku kooku kooku rakki moo Aliou Fall ah, kon maire Ndione lay nuyu noonu waaw waaw yaay ah, mu ne waa kii yaay daaw maire Ndione moom lay nuyu noonu suñuy yaay ji waaw mhm. moo yoon moom lay nuyu waaw waaw waaw ah, mu ngi noonu la ak ak maire Biége moo bu sa nekk sa ginnaaw di sa di sama yaay waaw ñoom ñoom ñoo nekk ci kër gi waaw ah. mu ngoog waaw ah, kooku maire Lému la. ñoo seen courage à deux mains ñu ne fii ci localité Diass même bu ñoom bokkuñu APR bokkuñu Benno Bokk Yaakaar dañuy jàppale Mamadou Ndiaye kon Yaya dama lay gërëm di la sant di wax ne yow tu es un visionnaire te dëkk bi defe naa ne mooy dëkk bi nga gën a fonk te fonk bi nga ko fonk moo tax ba nga bëgg qu'on tourne cette page que ñu dem le plus loin possible dinaa la jox rek on change de liste ci leen ma loolu waay donc yaayaa dinaa la jox rek nga sànni ki deux minutes ñu doog a continuer parce que gars yi ñu ñu xaar ci yoon bi mais incha allahu li nga bëgg yow pour dëkk bi yàlla dina ko def parce que dinañu ko régler di on va remporter ces élections parce que tout simplement on a une coalition très large. il y a quelqu'un qui dit je le cite je le cite il y des gens qui voient les choses telles qu'elles sont et qui se disent pourquoi. Il ya a d'autres qui voient les choses telles qu'elles n'ont jamais été et qui demande demandent pourquoi pas. Monsieur Ndion, Monsieur Mamadou Ndion, directeur du COSEC et candidat à la mairie de Dias, fait partie de cette deuxième catégorie. Donc moom ak ñeneen ñi bokkuñu. man ba may dugg Pastef c'est sur la base de la lecture d'un livre kii ba may dugg ci moom c'est sur la base de la lecture d'un programme donc programme man moo may dugal ci nit ñi fi nekk ñëpp c'est des gens bons ils font du tâton tâtonnement et du pilotage à vue man je ne marche pas dans ça donc yéen waa Diass saisissez cette chance là parce que c'est l'unique chance jërëjëf. Monsieur Mamadou Ndiol, c'est mademoiselle Fanta Je vous remercie de m'avoir soigné. que vous le maire de la commune de Diass. merci beaucoup yal na la defal li mu bugg ci mairie Diass bi yal na ko yàlla def Mamadou Ndione a waa muy faji sama doom ji fekk dama àndoon ak moom mais mu nekk euh, nit koo xamee dafa xamee trop xamee na trop Mamadou Ndione xam-xamam xam-xamam waa Diass xamuñu ko mais bi si mu jëlee mairie bi. kila la waajo si di xam Mamadou Ndione kan mooy Mamadou Ndione waaw waaw képp koo xamee daal jàng na rek te nga jàng rek te nga xam Mamadou Ndione dañu dafa nekkul morom gaa yi sax nekkul seen morom waaw mais yàlla na la defal mu jël mairie bi ci jàmm bu jëlee mairie bi vraiment bu boobaa ñëpp la ñuy taxaw di wax ni bu ñu xamoon bu ñu ko xamoon ñu jox ko bu ñu ko xamoon ñu jox ko